Bon, sur le principe mhm. de, de la prévention, je pense que c'est très clair au niveau de l'islam, moi, que euh, on a on a les, les, les faits du prophète sallam. Euh, par exemple, ce, ce, hadith où Ibn Abbas dit que quand il y avait trop de vent ou bien quand il y avait de forte pluie euh, que le prophète avait euh, recommandé euh, de rester à la maison. Et le mieux même, euh, changer l'expression hayya ala salah venez à la prière en une autre pour dire euh, sallu fi buyutikum ou bien as-salah fi buyutikum la prière chez vous mm donc ça c'est connu donc voilà une référence scripturaire euh, très importante maintenant il a beaucoup d'autres arguments le fait de le nécessité fait loi euh, ad-darurat tubihul mahdhurat par exemple ce, ce principe du droit islamique qui dit que euh, quand il y a nécessité quand il y a préjudice alors euh, il faut faire face donc nécessité fait loi euh, il y a le fait que dans tous les principes cultuels dans toutes les dans toutes les dans tous les actes cultuels quand il y a risque de mort ou risque en tout cas très élevé il y a toujours une alternative qui est proposée donc l'objectif ce n'est jamais de, de de de faire ce qui dépasse les possibilités de de l'être humain par exemple quand il n'y a pas de sécurité pour aller à la Mecque même si on a les moyens mm. euh, on reste soit soi. La même chose, même pour la prière du vendredi, même pour des questions de sécurité aussi. On trouve dans les livres euh, de fiqh que quand quelqu'un euh, se sent en insécurité, il peut ne pas aller à la prière du vendredi. Vous voyez Donc, euh, le fait que pour sauver une vie, c'est comme si on a sauvé toutes les vies. Donc, il y a cette, euh, ce principe de l'islam, man ahyaha fakannama ahyanna jami'an, celui qui sauve une Donc c'est une question de prévention et de protéger la humaine. Donc quand il y a danger comme ça de contamination et, quand le prophète a dit que ceux qui sont dans le lieu contaminé ne sortent pas et que les autres ne rentrent pas, tout ça en fait va dans le sens de d'atténuer de, les risques de contamination. Hmm. Donc euh, je pense qu'il y a assez d'arguments pour, euh, sur le principe, mm. euh, n'est-ce pas, dire aux musulmans qu'on peut ne pas dans les lieux de culte. Euh, c'est là que je peux me limiter maintenant. Mm. Le, gouvernement a pris la décision de dire tous les rassemblements sont interdits. Donc, euh, on peut penser que, y compris les rassemblements aussi religieux. Même mm. si ça donc, pas être donc, aux prières du vendredi et aux prières. c'est mon avis. personnel. C'est mon avis personnel et je pense que euh, aucun religieux, euh, aucun religieux, je veux dire en tout cas, aucun, aucun individu vraiment instruit hmm. euh, dans les sciences de l'islam ne peut remettre en cause le fait que le prophète ait demandé aux gens hmm. de prier chez eux parce qu'il y avait forte pluie, etc. Donc, a fortiori, hein, parce que quand il y a une forte pluie, on peut dire que le danger est individuel. Mmh. Parce que c'est la personne qui sort de chez lui qui risque d'avoir de, des problèmes. Mmh. Pas toute la communauté. Mais a fortiori, donc, quand il y a une euh, pandémie maintenant et que la contamination est assez connue, le contact, le serrage des mains, euh, les voies respiratoires, les éternuements, etc., c'est-à-dire toutes choses qu'on retrouve dans, un, dans un groupe humain à la mosquée, hmm. ou bien lors de la prière de vendredi, ou bien dans d'autres euh, rassemblements religieux. Mmh. Donc, je, comme je vous le dis, dans le droit islamique ne peut contester le fait que pour la prévention, il est autorisé euh, de ne pas se rendre dans des lieux euh, de culte. Maintenant, la décision doit être prise par les responsables et les chefs religieux et les communautés qui sont dans ces mosquées-là. Mm. Vous, en tant qu'imam, est-ce que vous continuez à vous rendre à la mosquée ou bien vous restez chez ben, euh, dans notre mosquée ici, au point E, on continue à faire la, la, prière quotidienne. Donc, on n'a pas décidé d'arrêter cette prière-là. Et je pense qu'il y a pas mal de qui continuent à le faire. Euh, parce que les gens ont dit, oui, les prières quotidiennes, il n'y a pas trop de monde. Même si pour moi, euh, c'est pas question forcément de monde, parce qu'une personne contaminée les prières quotidiennes. Pour la prière du vendredi, mm. on n'a encore rien décidé. Et vous avez décidé de quelque chose ou pas? rien encore pour l'instant. rien pour l'instant ok. oui alors imam ci wolof euh, nan nga décision bi nga xamante ni euh, autorité yi jël nañ ko pour ñu daykal lépp loo xamante ni ay rassemblement la ay daje euh, mu nekk ay màggal ay gàmm. waaw li li li kilifa yi nga xam ne ñoo war a jël boobu dogal. Hmm. ñoom jël nañ ko te dogal boobu man gis naa ni dafa ànd ak xam-xam. Euh, parce que ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci euh, wàllu euh, feebar wàllu médecine hmm. ñoom lañ ci war a gën a déglu ni ko lislaam jàngale ku nekk la mu xam nañ ko ca déglu kon ñooñu bu ñu waxee ni feebar bi ni muy lawee mooy jegeyanto bi joxante loxo nit koo xam ni sax daanaka bula la ci benn mètre sax bu tisoolee wala sëqët loolu mën na mën na la ko wàll kon ñoom bu ñu waxee lu mel noonu loolu mooy wane ni kon dajale ay mbooloo euh, dafay wàlle euh, feebar bi euh, kon ñoom bu ñu dogalee lool li ñu dogal ci xam-xam la tegu ak tamit bëgg aar askan bi kon dogal boo xam ne la yaakaar naa ñëpp dañ ko war a rafetlu. Hmm. lu jëm wàllu daje pour maanaam julli juma ak julli. lu jëm ci julli juma julli mbooloo ak sax yeneen jataay yoo xam ni. Hmm. julli ji dañ fay daje mën na nekk xoola daay rey toog di def seen jàng wala benn conférence islamique wala sax ngénte bu bu yaatu xam nga <laughs> ngénte sax mën na nekk lu rëy et cetera donc yi nga xam ni daal ci gàttal eh, ju julli gi dañ fay dem te diine tax parce que bu fekkee yeneen daje yi la moom euh, diine taxul mais yi nga xam ne dañ ko def ci turu diine ci yooyu lañuy wax loolu tamit maanaam dakkal ko ci turu lislaam tam am na lay mën nañ ko layal bu baax a baax parce que ma joxe misaal rek yéen bi salaa salaam euh, Ibnu Abbas ci jamono dafa dafa mës wax noddukat bi fekk ngelaw bu bu bu bëri am ngelaw bu bari wala taw bu bëri am mu ne ko demal si jàkka ji nga nodd waaye boo ñëwee ba ci xayyaala salaa fi ngay waxee ñëw leen julli si na nga wax asalaatu fi buyutikum mm-hmm. na ngeen jullee seen kër bi mu ko waxee boo gisee xaj de euh, kooku am ñu nekkoon ci wetam mel ni ñu xaw a jaaxle maanaam daal taw ak ngelaw war na tax nga naan nit ñu nañ jullee seen seen seen seen néeg ak seen kër mu ne leen ah su ngeen ma ci wóoluwul de yonent bi yàlla yoon yónni def na ko ci sama kanam hmm. ngelaw amoon na wala taw mu wax lu mu wax noddukat bi na wax lii kon loolu sunna la kon loolu bu doyul jullit euh, kii euh, ñu ngi koy waxee dalil euh, firnde kon xamatuma luy doy jullit yonent doon na sax boole ay jullit xam nga léeg-léeg ngelaw gu bëri am xam nga foofu dëkk bu yaatu la li nekk ci àll bi ngelaw bu bëri da am léeg-léeg comme tey ni nga koy gisee ni Dakar ngelaw bu bëri am ba foor hmm. yenn sasam ñu julli timis ngelaw gi foor mu mu mu dajale ak gée bi ne nañ julli gée yoon pour su ngeen demee bañ a dellu siwaat hmm. ndax bañu sonn ci ngelaw gi hmm. kon loolu yëpp ay ay matuwaay la ak li mu waxee ni feebar buy law bu nekk ci benn dëkk ku fa nekk bul génn ak ku fa nekkul bul dugg loolu yëpp jubluwaay bi mooy la rek mooy pour bañ a wàllante loolu mooy jubluwaay bi kon loolu mën nañ ko layee ci lislaam kon bu ñu demee ba tey gis ne dajale mbooloo yi dafay dafay dafay wàllante feebar bi kon ñi nga xam ne dañu bëgg ci turu diine di dem ba tey ci jàkka yi ci daayira yi ci ngénte yi ci ziyaaraat yi yu mel noonu euh, kon boo bëggee wax ñoom mën nga am euh, tegtal yooyu ci lislaam euh, boole ci am na ay réew jullit yoo xam ni ñun ëpp lu leen xam-xam gënuñ leen jullite boo jëlee tey Arabie Saoudite nga jël tey Maroc nga jël Iran ñoom ba ñu arrêté julli ajjuma yi sax yàggu na parce que feebar bi dafa am doole lool. Maroc yaakaar naa ni kenn du wax ne xamuñ dara ci lislaam ñoom tamit seen ulama yi def nañ fatwa wax nañ nañu arrêté jàkka yi julli waxtu juróom ak julli ajjuma euh, arab saoudite gis nga nee nañ nañ ajogum umra bi euh, et cetera kon loolu moom layal ko ci lislaam am na kon nag léegi kilifa diine yi ak imaam yi ci jàkka yi ñoo war a waxtaanee loolu ba seet nuñ koy nuñ koy taxawalee. waaw ci sama xalaatu bopp sama xalaatu bopp rek la a doon. Euh, est-ce que yaa ngi ñëw di julli si. wala ndax yaa ngi wax euh, ñi nga xamante ne ñoo fay julli si ñu toog seen kër bañ ñëw si jàkka ji. waaw man fi mu nekk nii nag dëgg la imaam laa ci mosquée première mais kenn laa ci imaam yi am nañ bureau extra kon du man rek maay jël dogal bi kon fi mu nekk nii euh, ñun jëlaguñu dogal ci ne bu ñu jullee ci waxtu juróom ak bu ñu julli. ajjuma kon ñu ngi julli si waxtu juróom mais man fu nekk nii comme su ma jiitee nii heure bu ma sëlmalee ma ngi fàttaliwaat nit ñi. li jëm ci euh, lu ñuy wax prévention bi raxas loxo be na saabu bi doy ci toilette yeeg euh, bu leen joxante loxo euh, ci suba rek am na ko ma bëgg a jox loxo ci mundu jàkk ji ma tëy sama loxo ne ko xanaa yow déggoo lu nit ñi di wax hmm. te it bu leen yàgg ci jàkk ji bu ñu defee farata rek nañ génn bu leen fa dajaloo encore di ni ñu tàmmee woon di waxtaan ak yooyu fi mu nekk nii foofu laa ci tol hmm. parce que du man rek man maa mën a dogal loolu mais comme ni ma la ko waxee daal bu ñu buñ ko dogalee damay gis ne lu lu jaadu la ci ci lislaam léegi nag kilifa yi ñu ak ñi yore jàkka yi ñoo ci war a waxtaan génne dogal. Hmm. Imam Kanté ñu ngi lay sant di la gërëm. tabaarkalla jërëjëf.